bisimilah xool ba xam baax na xool ba xam baax na Allah daa jege si tuuti bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayyidina wa mawlaana muhammadin almakin wa ala aalihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun kon kàddu yi du gudd kàddu yi nuyoo rek la yu bàyyi ko ci ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoonu mburu suñu borom may ko kattan ak lépp mu àggale ko ni mu ko bëggee ndax xelum jullit yëpp a dal ci moom xelum taalib yëpp dal ci kon ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalib yëpp di di nuyu Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke al imam mi nga xam ne eh, ñëpp xam na ni demee ndax sëtu Serigne Touba la ak Serigne Dame Abdourahmane Lo taxawaayam itam li ko fi sëriñ bi séentoon ba indi ko fi ñëpp xam ne ne matal na ko kon na ko yàlla yàgg taxawe ñëpp yàgg topp ci ginnaawam di nuyu sëriñ ci Fay mi nga xam ne moo yore kàddu sëriñ bi di fi jëwriñam ca Ndakaaru ak mboolem li ko wër lépp moo itam ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax fàttali rek lay doon ndax liggéey bi bu demee ba agsi fii ñëpp xam nañ ci taxawaayam xam ci yitteem xam ci pëstéefam ba yàlla def suñu borom def li ci ëppoon àgg kon moom itam ñu ngi koy sant di gërëm taalibe yi topp ci ginnaawam wax ji nag du gudd ndax dañuy sant bokk jullit yi rek ak bokk taalibe yi rawatina fii àdduna toll nii ñëpp maase xam wopp ji nga xam ne suñu borom wàcc na ko ci kaw suuf muy balaa di mbas moo xam yàlla ko fi yàlla teggi ndax ñëpp xam nañ ne li muy gàllankoor kon itam bu yàlla defee ñu dem ba mu demee waat nii ba ak woy fal am ci ñëpp gën a góor góorgóorlu ci sàmmonteeg li nga xam ne moo leen di aar di aar ñëpp ndax jàngoro kum ne ci yow war ngaa fexe ba du boo bu ko wàll sa morom kum néew ci itam war ngaa fexe ba di ko wattandi loolu suñu borom ko santaane kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu nag mboolem bokk jullit yi ak bokk taalib yi ndax jàkka ji wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan jullit yëpp nag maase giñ maase maase ci xam ne jàkka ji néegub yàlla lépp lu ñu askanale sëriñ Tuuba jullit yëpp ko bokk ndax sëriñ bi noonu la doon ndund doon waxee eh, lii nag firnde li ci ne wóosi ko ko ñëpp wóosi ci loolu xam ne ji xam ne bi yàlla ba tax mënoo fee xàmmee murit ak tijaan ak xaadir laa laayeen ak yeneen tarixa yi ci des yëpp ci Sénégal ak ñi nga xam ne sax ay jullit lañ te askaruwuñ ci tarixa loolu lépp mooy li nga xam ne suñ borom santaane na ko ne te rasulullahi indi ko mu muminu axuuxul axuuxul muslim innamal mu'minuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum lem santaane it ci jullit yëpp maas ci àndoo nekk benn lii bokk na koy firndeel kon nag ñu jeexale foofu kàddu yi jox sëriñ Mbacke yu fay yóbbante bi nga xam ne war na ko jottali ci bokk taalibe yi ko ci bokk jur gi mu leeral ko ni mu ko war a waxee ginnaaw boo xam ne am na ci ndigal lu bàyyi ko ci ki fi nekk Serigne Touba di as Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér mu jottali ko bokk taalibe ak bokk jur yi ñëpp dégg na ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Uh-huh. bismillahi irrahmaani irrahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant sëriñ bi bu baax di yeesal suñu taalibe ci Serigne Touba di ko jaarale ci kii ko fi nekkal muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir tey ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam may ko kattan ba liggéey bi mu liggéeyal lislaam liggéeyal ko maamam mu def ko nim mu ko bëggee te mu ànd te nu ànd kook moom di nuyu cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadr Mbacké ibnu Serigne Touba mi nga xam ni moo yor kàddoom tey yor kàddu gi njabootug Serigne Touba gépp di jël suñu ziyaara ak suñu nuyoo di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci njabootug Serigne Touba gépp am ratib Cheikh Mahamadul Bachir Lo ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak moom ci liggéey bi fii ci Masalikul naan di nuyu mbokk taalibe yépp di nuyu jullit yépp di leen sant ci turu sëriñ bi di leen sant ci turu Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ni moo ñu indil cantuk sëriñ bi ci liggéey bi nga xam ni na mu ko waxe ca njaalbeen ba tey ñoo ko ànd ànd ko àndin wu rafet ba tey jii lii nekk sagub lislam bi yépp nu mu leen ko waxe woon it ci yoonam wala mujj nga xam ne ñëwoon na fi ci weer yee ñu génn doon leen xamal tamit ni liggéey bi am na beneen fànnu liggéey boo xam ne bii mooy li nga xam ni mooy mottali programme bi ñu waroon a def fii ci Masaalikul naan muy institut islamique bu rëy bii ngi ñu fi war a def defal ko Serigne Touba ak li nga xam ni moo desoon ci liggéey bi muy loo xam ni lii booba ba léegi ñoo ngi nekk ci ay waajtaay ci maanaam ay di def li ñuy wax ay étude ay pré étude yoo xam ni bu ñu noppee ba jébbal lépp sëriñ bi rek bu neexee yàlla ñu daal di koy tàmbali ndax moo nekkoon programme bi nga xam ne moo doon programme global bi nga xam ne mooy institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni jàkka ji benn la ci li nga xam ne lii mooy programme yi di tamit xam ni dañoo nekk ci waajtaay di séentu màggal gi nga xam ni moom la ñuy def at mu nekk ci ndigalu Serigne Touba yi nga xam ni ci première semaine u mois de octobre lay doon màggal googu nag xamoon ngeen ni tamit da daan am ay waajtaay yoo xam ni dañ ko daan faral di def mu doon ay colloque wala mu doon ay symposium wala mu doon ay ay journée culturelle yoo xam ni dañ ko daan waajal màggal gi fii ci Ndakaaru di ko ko séenoo ba pare doog a dem màggali Touba mu daje nag ren boo koy seet ni ko fi sëriñ bi waxee bi mu fi ñëwee ci ubbite gi ci mois de septembre le 27 septembre 2019 nga moog màggal gi daanaka liy dox seen diggante xam naa ni ci fukki fan lay doon te comme daf ñu joxoon ndigal ni at mu ne ñuy préparer ngir waajal màggal gi nga xam ni mooy màggaluk sëriñ Tuubaa gi ñu def programme spécial ci bu weer wi teroo rek di benn fan ci weeru safar ñu tàmbali di ko waajal màggaluk Touba ci manifestation culturel yu mel noonu ba ba ñuy dem Touba ren nag mu nar a ci ndigalu sëriñ bi ak fii ci ndakaaru ay xew-xew yoo xam ni ñu bëgg a boole xew-xew yooyu yëpp comme nañ leen ko diggee woon ba ñuy ubbi jumaa ji mu nekk semaine culturelle lu ndakaaru boo xam ni at mu ne dañ koy waajal mu nekk semaine culturelle ba ba ñuy dem di màggali Touba at mi nag ku ne xam na ni màggalu Touba ci première dizaine décatu mois de d'octobre lay doon sëriñ bi jox ñu ndigal ni nañ fi def semaine culturelle bu yaatoo yaatoo yaatoo ba nga xam ni xew-xew yi am biir ndakaar muy ñaari guddi Ndakaar yi te dañ ko daan màggal di tamit julli gi nga xam ne gii moom la julli woon ci géej gi ñu di ko màggal ak li nga xam ni mooy 27 septembre nekk date boo xam ne bii date anniversaire u ubbiteg jumaay Masalikul Jinaan la ñu bëgg a boole xew-xew yooyu yëpp def ko ci benn semaine boo xam ne bii day doon semaine culturel boo xam ne bu mag boo xam ne dañ koy waajal màggalu Tuuba buñ ko defee ba le 27 le 28 ñu doog a nag daal di waaj doog a dem Tuuba mu nekk xew-xew boo xam ne bii xew-xew bu rëy rëy rëy doon nga xam ni dañoo bëgg la nga xam ne lii amoon nañ ko ci ouverture bi nga xam ni moo doon ouverture Masalikul Jinaan bi ci ubbite gi daanaka na mu meloon ci mel na ak taaru ak na mu meloon ak pas-pas bi nga xam ne moom la taalibe yi amoon jullit yi amoon ko ñu daje fi def semaine culturel boo xam ne bii dina am ay exposition yu mag a mag a mag dina am tamit ay conférence yu mag comme niñ ko defee woon bi ñuy def ouverture bi dina am tamit ay ay ay ay waxtaan yoo xam ne yi dañ koy waxtaan jëme ko ci li nga xam ni mooy yoon wi jëme ko ci li nga xam ne tamit mooy diine ji jëme ko ci li nga xam ne tamit mooy situation yi nga xam ni moo nekk dans le monde comme niñ koy faral di def rek nga xam ni dañ koy waajal nag mu nekk waajtaay woo xam ni waa Ndakaaru gépp ak li ko wër dañuy fi ànd màggal ko def ko muy julli géej gi def ci tamit ñaari guddi ndakaar yi ak ubbite gi nga xam ne gii mooy ubbiteg masalikul jinaan loolu daal mooy ndigal li nga xam ne tukkee woon na ci sëriñ bi tàbbi fii ci cheikh Mouhamadul Bachir mu ñëw indil ñu ko moo taxoon mu ne woon dinañu baaxe ñëw fii tey ci àjjuma ji julleeg ñun indil ñu ñaanuk sëriñ bi soññ tamit ci li nga xam ne lii mooy liggéey bi soññ ci li nga xam ne lii mooy àndandoo geeg bendandoo gi te xam ni ñun taalibey murit li ñu war mooy toog di déglu ndigal bu ndigal ñëwee rek ñu jëfe ko leneen waruñu lu dul déglu ndigal ndigal li mu jóge ci ka ko war a joxe muy Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mourtada Mourtada Muntaxa bu ñu ko joxee mu wàcc ci moom rot si ci ñun ñu daal di koy jëfe def ko ni nga xam ne bii moom mooy li ñu war mooy jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee ñu ko defee ni ko sëriñ bi bëggee daa di am li nga xam ne lii moom la ku nekk bëgg cib taalibe muy ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi nag waa ndakaaru yii wax dëgg yàlla ameel nañ leen cant ameel naa leen ngërëm ma di la ko seedeel yow mi nga xam ni yaa ma teg ci seen ci seen kanam lépp loo xam ne jóge na fi yow jóge ci sëriñ bi bu ma leen ko waxee dañuy daal di ànd ak man def ko noo xam ne nii dina ëpp sama njor lii nga xam ne tamit mooy ndigal lu yees tabbi E na nga ci rafet njort te nga ni sëriñ bi dinañ ko def ni mu ko bëggee nañu ñaanal ba sa borom dimbali ñu kàttanal ñu ba nga xam ne bii buñ ca eggee ñëpp dinañ maase xam ni la nga xam ne moo doon ndigal lu jóge ci sëriñ bi matale nañ ko ndax ñu mën a am ngërëmam yow nag ñoo ngi lay def beral sa cantu bopp cant goo xam ne gii ñun ñëpp ñoo la ko yoreel kuy taalibe murid rek yoroon na la cant gi ndaxte nii nga nekk ci yoon wi nekk tànku sëriñ bi nekk làmmiñam nekki bëtam day loo xam ni yombul waaye nag sa maam ji nga xam ni mooy sëriñ Touba moo la tànn moo la ko liggéeyloo moo la koy yoral ba lépp dina woyof ndaxte kat jiitu moo metti jiitu nag metti na waaye am nag pay pay gi nga xam ni ku mës a jiitu ku ne ba def ko nañ ko nañ la ko sante woon yàlla bu la loolu ump yàlla na sama borom defal la ko muy pay goo xam ne gi fii mu yàgg lool ba nga xam ne bi dinga nga ci ko defee noo xam ne nii ni nga ko bëggale ak ni ko sëriñ bi bëggee mbokk taalibe yëpp ñoo ngi maase di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla kàttanal la di la ñaanal yàlla yàlla wéral la di la ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi nga nekk ci suñu kanam dina jottali ndigali sëriñ bi ñu koy jëfee ni nga xamee ni bii moom la ko sëriñ bi bëggee ndax boo ñu ko woyofalul woon dina jafe ndaxte ñun sëriñ bi rek la am ndigalam rek lañuy déglu waaye ndigal loo ñu indi di nga ci jàpp ba daanaka dañuy tiim rek waaye du ñu yëg du ñu yëg diisaay bi loolu lépp nag sa baax la ak bëgg sëriñ Touba ak bëgg a liggéeyal sëriñ ak bëgg euh, euh, ndax yow lila ñor lépp mooy ndamul ndamul sëriñ Touba rek kon bon maa ngi maase ak mbokk taalibe yi ndakaaru lépp ak yi nekk fépp sax di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko sa borom yàggal kattanal ko yàlla may ko may ko may ko may ko mu def lu mu bëgg a def mu defal ko Serigne Touba te ñu ànd ko moom ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngeen jëf en français